ginnaaw amagul lu koy faat ñu faagaru message bi nga xam ne moom laa bëgg a jox sénégalais yi surtout ñi nga xam ne ñi ngi ci biir réew mi mooy ñu xam ne jàngoro ji daf ci jàngoro joo xam ne lislaam waxoon nañu ne ay digtal yoo xam ne buñ ko jëfee yaakaar nañ ne jàngoro ji même bu amee it du law lislaam waxoon nañu bu ngeen déggee jàngoro ci ab barab bu leen fa dem bu leen fekkee ci barab bu leen génn lislaam waxoon nañu ne ku ci nelaw ba yeewu bala ngaa def dara nanga nga say loxo lislaam waxoon nañu ne nit ku nekk war ngaa socc bis bu nekk juróomi yoon war ngaa jàpp juróomi yoon sa nga sarax fiiru gën ngaa new fukki yoon ak juróom ci bis bi mooy njàpp mi ngay jàpp ci julli juróom islaam waxoon nañu ne wépp ñam woo xam ne dañ koy jëfandikoo mbaa ndox nañu koy muur bala cee tookee wadd di ñu lor lislaam waxoon nañu ne bu ñu bàyyi kaawaru naq mbaa poqataan ci suñu yaram lu ëpp ñeent fukki guddi lislaam waxoon nañu ne bu ñu lekk wépp yàpp woo xam ne ñorut moo xam jën la moo xam yàpp wu weex la moo xam yàpp wu xonq la lislaam waxoon nañu ne bu ñu lekk lépp loo xam ne daf ko araamal ci ñun bokk na ci xaj wala golo wala njugub te xam nañu ne ña doon lekk loolu foofu la mbir mi euh, cosaanoo lislaam woxoon nañu ne lépp loo xam ne ak lekk la na sell bala ñu ko jëfandikoo islaam waxoon nañu ne fépp foo xam ne dégg nañ fa musiba bu ñu fa dugg bu ñu fa fekkee bu ñu fa génn kon yii yëpp bu ñu ko jëfe woon am nañ yaakaar ne même bu jàngoro ju amee du ñu lor te lislaam wax nañu laa darara wala diraara bul lor sa bopp waaye bul lorit sa mbokku doomu aadama ci kaw suuf islaam waxoon nañu ne doom doomu aadama bu mu jëfee bu mu yóbbu boppam ci lu koy alak Stop Covid-19. Je reste chez moi et j'apprends à la maison.